ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi dellu sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajewaat ci am néegam fas yéene jël benn bind ci li nga xam ni dañ koy tuddee fiq ñuy sukkandikoo ci téere bi nga xam ni mooy risaala bu ibn abi zayd al xayrawaani ñu yegsi woon ci ñiin fukkeelu bunt bi ak ñett mi ngi noonu muy baabun fi salaami wal istizaan wa tanaaji mi ngi noonu téere ba mën a yor rek xoolal ñeen fukkeelu bunt ba ak ñett mi ngi noonu di fàttali it ni tey mooy juróom-ñeenteelu fan ci weeru rajab di tombeeg it le 21 février naka noonu it ci 2021 bi di wax it ni mbokk yi nga xam ni dañ daan teew ci dars yi ca ay ngant taxit koo xamee ni nii mën na ko yónnee numéro am ci 77 814 42 20 dana mën a jot dars yi bu dee ne am na whatsapp jamono yi it ñu ngi koy def directement ci facebook bi ci koo xamee ne nii am nga jumtukaay boobu mën nga koy seetaan en direct kon mi ngi noonu su dee bokk nañu gisit ñun ñëpp day wax ne lii day baabun la fi salaam salaam mooy ab nuyoo nuyoo boo xam ne nii amaan la mooy ñaanal nit ki jàmm ak mucc wal istizaan mooy sàkku ndigal mooy sàkku ndigal ci mën a dugg ci nit ki watanaaji ak la jëm ca ay déeyoo ay déeyoo yu nit ñi di déeyoo wal qiraa ak lu jëm ci am njàng wa duaa wa zikr ak lu jëm ci ñaan ak tudd yàlla wal qawli fi safar ak wax ju muy nar a waxit lu aju ci wàllu tukki kon mbokk loolu la fas yéene jàngale ci bunt bi kon mu ne wa raddu salaami waajibun delloo nuyoo day wareef la wal ibtidaau bihi sunnatun muraghabun fiha amma nag jëkka nuyoo ba sunna la bu ñu xemmem loo lool ca moom wassalaamu bu dee nuyoo an yaqula rajulu assalaamu aleykum mooy góor ga ñëw wax yal na mucc nekk ci yéen jàmm nekk ci yéen wa yaqulu raad dana wax kay delloo loolu wa aleykum salaam ak yéen it yal na mucc nekk ci yéen aw yaqulu salaamun aleykum wala boog mu ne mucc mi ngi ci yéen kama qiila lahu comme nañ ko ko waxe rek wa aksaru ma yantahi salaamu ila albaraka la gën a bari ca famille yem ab nuyoo mooy ba ngay wax wa barakaatu an taqula fi raddika ca mooy ngay wax ba ngay delloo wa aleykum assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na jàmm nekk ci yéen tamit ak yërmande yàlla ak barkeem wala taqul fi raddika salaamullahi aleyk mu ne nag bul nekk di wax naan la nga xam ne mooy muccug yàlla ci yow mi ngi noonu waaw mbokk kon lii bunt la boo xam ni lim nañ lim ci war a jëkk a jàngale la ca jiitu mu ni yow jullit bu la sa mbokk julit wo rombe nuyu la farata la ci nga delloo ko nuyoo boobu te xam ngeen suñu borom moo wax ni ida xoyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsaniha aw rudduha heure buñ leen nuyoo delloo leen nam gën a rafete wala ngeen delloo lu mel ne lañ leen nuyoo loolu kon farata la fay nuyoo farata la donte ne ni nattu bi ñu yàlla nattu ci suñu réew yi maadaama li ëpp suñuy nuyoo ñoo ngi ca gën a fonk sant yi benn waay day romb mbokkum julitam ne ko salaamaaleykum mu naa njaay njaay njaay njaay mbokk loolu ëpp naa def ay sant du nuyoo suñuy aada la yoo xam ni ah bu dee aada woo lañ ko rafet na nit ki nga nuyu ko ne ko njaay mu fay la ne la jóob amul amul problème waaye nga romb ko sant njaari na ko njaay mu ne la jóob kenn ci yéen nuyul moromam mi ngi noonu islam xamut loolu kon fay nuyoo bi moom farata la amma nag romb sa mbokk julit nga nuyu ko loolu sunna la bu ñu xemmem loo te it yonente bi alayhi salaam boole woon na ko ci juróom benn àq yi julit yoral moroomam boo ko rombee nga nuyu ko waaye li gën a nekk farata mooy fay nuyoo boobee naka la ñuy nuyoo booy nuyoo da nga naan asalaamaaleykum mi ngi noonu asalaamaaleykum loolu la ñuy nuyoo bu ko defee loolu tamit ku nekk war koo jàng te mooy dañuy wax lu bari fi ni salaamaaleykum waaye di naan asalaamualeykum loolu la ñuy nuyoo waa ja nga xam ne day delloo it ne wa aleykum salaam bu dee ñun Sénégal dañ naan maaleykum salaam yaa ngi dégg te maaleykum salaam la mu gën a jege sax mooy yéen jàmm nekkul ci yéen donte ne yàlla duñ ko toppee waaye ku nekk ci ñun it war na koo jéem a jàng wa aleykum salaam mi ngi noonu yàlla na jàmm mucc nekk ci yéen tamit julit bi nga romb di ko wax asalaamualeykum loole ci yàlla la jóge moo tax borom bi ni fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba julit boo ko rombee na ko asalaamualeykum yaa ngi ci jublu mooy yal na la yàlla muccal àdduna ak alaxira ndax ki dundoon ci àdduna nekk buur musul feebar musul am problème ba pare day dem sawara kooku amul jàmm jàmm balaa mat jàmm day lënkale jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira moom it bi mu naan la wa aleykum salaam ma nga ca war a yéene yal na yàlla may la jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira mi ngi noonu loolee kon mooy la nga xam ni moom la ñuy wax ci nuyoo googee léegi nag suñu borom dane ki leen nuyu fay leen ko lu gën wala ngeen delloo ko mu ne nag loolu mi ngi yem ci barakaatu bu benn waay ñëwee rek ni asalaamaaleykum bu la neexee nga ne ko waaleykum salaam yem foofu waaye la gënoon mooy waaleykum salaam wa rahmatullah yàlla na mucc nekk ci yow ak yërmande yàlla bu dee ne moom nag moo jëkkee asalaamaaleykum wa rahmatullah yow bu la neexee tontu ko waaleykum salaam wa rahmatullah waaye la gënoon nga ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu al na muccug yàlla ak yërmandeem ak barkeem nekk ci yéen amma bu dee ne moom daa ñëw tegale la ñett yépp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su boobaa da nga koy delloo rek lam la nuyoo am na yenn borom xam-xam yu cay dolli wa magfiratuhu mooy ko ñëw ne la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu comme yàlla dana fay ko lu gën ñu ne na nga ca dolli wa maghfiratuhu ak njëggalam waaye it loolu du borom xam-xam yépp a ko nangu ndax yonent bi alayhi salaam toog na ci jataay benn waay ñëw asalaamaaleykum yonent bi ne ko waaleykum salaam daa dina fukk beneen waay ñëw dugg asalaamaaleykum wa rahmatullah yonent bi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah ñaar fukk ñetteelu waay ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yonent bi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu fanweer ñu dégg ci ñaari mbir benn mbir bi mooy ki wax asalaamaaleykum kese am na fukki tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah am nga ñaari fukki tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am nga fanweeri tuyaaba waaye yonent bi asalaamaaleykum ja dolli na ca wa rahmatullah dolli na ca waaye barakaatuhu dolliwu ca looloo tax moom ci borom téere bi mu ne nañu xam ne nuyoo ak fay nuyoo mi ngi yem ci wa barakaatuhu mi ngi noonu loolu kon lay wax foofu mu ne nag bul wax salaamullahi alayka te loolu it arab yi dañ koy nuyoo waaye mu ne loolu dee su ko wax kon mi ngi noonu su dee dañuy jël beneen bind mu ne wa ida sallama waxidun min aljamaa ajzaa anhum su dee mbooloo ma day kenn dong da ca nuyoo dana leen doy wa kazalika in radda waxidun minhum noo nit la leen di doye bu dee kenn ci ñoom moo fay nuyoo ba wal yuslimu raakib ala almaashi ki nga xam ne daa war na nuyu ka nga xam ne mooy dox walmaashi alal jaalis kay dox moo war a nuyu ko toog walmusaafaxatu xasanatun la nga xam ni moom mooy nekk saafonte ca la nga xame ni nii mooy ku ne jox sa morom loxo loolu lu rafet la wa kariha maalikul almuanaqata amma la nga xam ne nag mooy ay accolade ku mel ne Malik moom da koo sib wa ajazaha ibnu uyayna donte ne am na kenn ci ay seeni borom xam-xamu maliki yeey ñoom nee nañ loolu lu mën a nekk la wa kariha malik taqbilul yadd noonit la malik sibi di nuyu nit di fóon loxoom wa ankara ma ruya fiihi daa di sib ca ne lañ ca solo loolee nekkul lu wér mi ngi noonu bokk kon day wax fii su doon mbooloo dañuy romb dañuy romb kenn ci ñoom na asalaamaaleykum loolu doy na mbooloo mi yépp dañuy jàppale ñoom ñëpp nuyoo nañu jarul ñoom ñëpp ñu yëkkantindoo seen kàddu asalaamaaleykum bu ko kenn waxee rek doy na ñooñu ñu romb ñu toogit même bu ñoon mbooloo la su dee kenn ne wa aleykum salaam su boobaa yóbbaale na mbooloo mi yépp mi ngi noonu su boobaa yóbbaale na mbooloo mi yépp keneen ku cay dolli da cay dolli pour ngéneel rek waaye farata ba moom ka nga xam ne delloo na ko yóbbaale na mbooloo mi yépp muy waxit ay yenn règle mooy yow mi nga xam ne da ngaa war charrette nga waram otoom nga waram lu mën a doon nga romb koy dox ci yoon bi yow mi ko romb yaa ko war a nuyu yow mi nga xam ne da ngay dox nga romb ko toog yow yaa ko war a nuyu même bu dee mat na la bàyyi même bu doon mat nga ko bàyyi maadaama romb ko mu toog yow yaa ko war a nuyu mi nga noonu mi ngay fàttali benn histoire bu mas a am fii ci suñuy jàkka benn ci jeunes yi nga xam ne dañuy dugg ci sunna tàng lool donte na am ñu ak ak yenn ràññee moo papa ji juróom benni at masala bi juyoo na leen mu génn kër baayam pendant six ans yàlla mi jaare lu ko neex fa ko neex ci jàkka jële leen yàlla jubale keroog julli nañ fajar taxaw ba jant bi tiim ñu ca la ñu doog a déggoo parce que papa ji waa alpulaar yi lañu jóge na tukki ñoo fekk nit ñi ci saal bi mu romb dem seen aada njaboot gi nag ñoo war a ñëw di nuyoo léegi nag njaboot gi yépp ñëw nuyoo góor gi ne waaw ana diw romb moo ko ci saal bi ñu ne ah kay mu ne ko waaw diw lu tax nuyoo ma ko mu ne ko yow mi romb yaa war a nuyu nit ñi góor gi ne ko ah maa la war a nuyu mu ne waaw góor gi nag loolee ñu jàppante ci daal jàppante bu tar ba xale bi jël ay bagage am dem pendant six ans waaye mbokk loolu naam góor gi boo xamoon sunna say doom laak say sët laak ku mën a doon yaa leen romb yaa leen war a nuyu waaye nag lii ay masala la yoo xam ne l'islam bi mu koy tëral pour indi jàmm tax waaye yow ndawal jullit bu dee sa baay xamul masala boobu tee ngaa dem nuyu baay rek bis boo demee bay waxtaan ak moom nag ci njëkk nga ne ko ah baay de nañu xam ne yonent bi alayhi salaam nee ne ko romb ay jun ma la war a nuyu waaye taxaw nga ne ko man du ma la nuyu ndax yaa ma war a nuyu gis ngeen ala kulli xaal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ku romb ay nit yaa leen war a nuyu ak martaba boo mën a am nag léegi mu des la nga xam ne mooy joxante loxo loolu lu rafet la donte ne mën naa ñàkk nit ki mën naa ñëw du jox kenn loxo rafetal laa jëmale corona moom yaakaar naa gars yi boole nañ ko ci li ñu sit ala kulli xaal yonent bi alayhi salaam nee na ñaari jullit heure bu ñu joxantee seen loxo yàlla da leen di jéggal seen bakkaar avant ñuy teqali ko loolu ci tuyaaba yi ëpp am solo la buñ koy wax nag dañ koy wax góor ak góor jigéen ak jigéen góor du nuyu soxna bu ko daganul ah waaw bu ko jox loxo du ko jox loxo donte ni ñu bari dañuy jàpp ne ibaadu yi duñu nuyoo fekk ñàkk xam la dañ ne duñ joxe loxo waaye borom bi jigéen da nga ko nuyu mi ngi noonu asalaamaaleykum mooy cosaan ba lii ngëneel rek la jox ko loxo mu jox la loxo bu dee góor ak góor bu dee jigéen ak jigéen loolu lu ñuy sopp la mi ngi noonu amma accolade nit kiy ñëw nga accolade ko ku mel ne Malik moom da ko doon sib parce que accolade mooy nga jël nit ki lëngu ko teg sa lox mu ne nag loolu am na ñu bari ñenn yi bu ñu leen di accolade seen xol day ñagg-ñagg loolee kon moom mu daal di koy sib te ne daal nañ yem ci la nga xamee ne ni mooy nuyoo bi kese amma bu ñu delloo ci yeneen i gisin dañ ne sahabatul kiram suñu masaan daje dañuy nuyoonte joxante loxo waaye buñ masaan jóge ci tukki dañuy akkolaatente mooy buñ masaan toog lu yàgg gisante wuñ buñ dajee dañuy akkolaatente amma nag bu dee dañuy daje rek dañuy jox loxo kon loolu day wane ne nit ki nga gëj gis yàgg na wala mu tukki woon ba ñëwit loolee nga akolaat ko loolee da ngay gis ne dara nekku ci lu dul nga yëg ci waa ji ne akolaat bi nga koy akolaat neexu ko loolu moom beneen affaire la moo des li nga xam ne dañ koy tuddee nuyu nit ki fóon loxoom loolee am na ñu bari ñoo xam ne am na leneen luñ ko remplacer waaye loolu njuumte la mbokk jullit li doon cosaan au lieu nga nuyu nit ki jël sa jë teg ci loxoom da ngay nuyu nit ki fóon loxo ko mel ne Malik dafa sib loolu te it la nga xam ne sib na ko nee na riwaayu yi ci rot loolu moom doyu ko donte ne boo demee ci yeneen téere da ngay gis ay hadis yu bëri suñu ay Aysa nettali kook ñeneen ak ñeneen ci ne xataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne da daan daana fóon loxo Fatima Fatima it di fóon loxoom ba li ëpp ci borom xam-xam yi dañ naan nit ki. su dee dafa doon borom cër ci yow imma mu nekk koo xam ne ab borom xam-xam la boo xamee ne nii mi ngi jàngale xam-xam te yàlla tax dara nekkul ci ñu màggal xam-xam boobu fon loxoom kii sa wajur la nga màggal ko fon loxoom ak képp koo xam ne nii am na cër la tax Malik gën ko sib rek mooy dañ koy généraliser ba di ko defal ñu ko yoyowul ay boromi alal yoo xam ne amuñu lenn luñ defal l'islam amuñu benn cër ci diine wala ay ñu yor nguur ñoo xam ne amuñu benn cër ci diine mi ngi noonu léegi-léegi kiñ koy defal mën na ci yëg boppam mi ngi noonu mbooloo mi dajeeg moom ku ñu di fon loxoom loolu mën na yëg boppam loolu tax ko mel ne Malik dina sip loolu rawatina lañ ci nette li ne da yonent bi daana ko def moom nanguwul loolu almuhim daal nañu xam ne su dee ne nit ki dala féetewoo ci kilifteef walla mu féetewoo la nga yëg ko ci wàllu taxawal diine dara nekkul ñu nuyu ko fóon loxoom moom it day xam ne loolee cër kese la waaye amul benn lu muy firi ni cër la bu mag bu mu am ci yàlla wallahu subhanahu wa taala aalam kon ñu jël beneen bind mu ne wala tubda'u lyahuudu wannasaara bisalaam bu ñu commencé mukk dajeekub yahud wala nasaraan di ko jëkk nuyu fa man sallama ala zammiyun képp ala zimmiyin képp koo xam ne day nuyu ci koo xam ne zimmi mooy yahud ak nasaraan yiñ may jàmm ci këru lislaam fala mi ngi noonu fala yastaqbiluhu bu koy nuyu du jàkkaarloo ak moom direct waaye da koy won gannaaw rek nuyu ko jàll wa in sallama alayhi alyahudiyun wa aw nasraniyu bu dee nag ab juif moo ko romb wala chrétien nuyu ko fal yaqul wa alaykum na wax waaw ak yéen ak ci yéen tamit wa man qaala alayki salaam koo xam ne def ne yal na silaam nekk ci yow au lieu mu ne salaam mu ne silaam bi kasru siin mooy siin gi au lieu mu def ko fatha mu kasru ko def silaam wa hiya al hijaratu faqad qila zalik ca mooy ay xeer ñu ne loolu am na ñu ko wax gannaaw ba mu ne wal istizan wajib sakku ndigal bala ngaa dugg ci nit ki wareef la fala tadxul baytan fihi ahad bul dugg ci benn néeg benn kër boo xam ne am na ko fa nekk hatta tastazina thalatha lu dul da ngay ñaan ndigal ñetti yoon fa in azina lak buñ la joxee ndigal xayrun wa illa rajaata bu dul looloo nga dellu wa yuraghabu fi iyadati almarda xemmem loo nañ it ci seeti ña feebar mi nga noonu kon mbokk fii day indi benn masala mooy chrétien ak juif yi mu ne boo dajee chrétien juif nee na bu ko jëkk a nuyu mi ngi noonu bu ko jëkk a nuyu bàyyil ba mu nuyu la bu la nuyee nga ne ko ak yow te mooy li nga ma ñaanal na dellu ci yow bu dee lu baax la xëyrun bu dee lu bon la xëyrun ca it loole la nekkoon cosaan ba mooy yahud yi dañ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko robbee ne ko assalaamu alayka ya muhammad ki déggul arab daanaka du ci xam benn différence entre assalaamu alayka ak assalaamu alayka assaamu mooy dee ay muhammad yàlla na nga dee waay gis ngeen yonent bi sallam ne leen wa alaykum bis fekk ne fa suñu yaay Aïcha benn yahud bu bon romb assalaamu alayka ya rasulullah Aïcha ne ko wa alaykum assalam wa laanatullahi abna al khanazir yàlla na nga dee yàlla rëbb leen doomi mbaam xox yi gis ngeen yonent bi sam na ko dalal Aïcha mu ne ko xanaa déggoo li mu wax mu ne ko xanaa déggoo li ma ko tontu ah dafa maa ñaanal yàlla man na ko waaleyk jeex na mi ngi noonu gis ngeen loolee kon mu ni dag naan ko waaleyk mu ne nag am na borom xam-xam yoo xam ne moom bu la nee asalaamaaleykum ne ko yow it aleyka silaam mooy asalaamaaleyka ci silaam mooy ay xeer waaye mbokk masala bi lenn ci borom xam-xam yi rawatina ko mel na Cheikh Nasir Albani bu mu dajalee yi ci nekk day wax ne téere bi mi ngi nekk ci yahut ak nasaraan yi nga xam ne dañoo noonu ak lislaam dañoo yëg ci ñoom ñu noonu ak lislaam waaye suñu borom dani la yanhaakum allah an allazina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin borom bi mu ne terewuma leen ñi nga xam ne musuñoo xeex ak yéen ci diine musuñu leen a génne ci ngeen maandu seen diggante kon bu ñu wóoree ni chrétien yi ñu dëkkal kat amuñu benn noonu ak lislaam li ñuy wax mooy asalaamaaleykum bu leer la ñuy wax dara nekkul ñu wax leen asalaamaaleykum muy de un ñaareel bi mooy bu dee dañuy romb dañuy nuyu ñu nit bu ñu leen rombee nañ leen nuyu kon bu leen jëkk nuyu yahudi nasaraan mi nga jëm ca ña suñu borom di wax ni innama yanhaakum allahu an allazina qaataluukum fi ddin wa axrajukum min diyaarikum an tabarruhum ñu mel mi ngi noonu ala kulli xaal mooy ñi nga xam ne dañu leen génne ci seen kër yi xeex ak yéen waaye bu dee daal jàmm ngeen siq dara nekkul ci ñu jëkk leen a nuyu dara nekkul ci ñu fay leen la nga xam ne muy ab nuyoo lim ci teg mooy wàllu laaj ndigal islam dafa bëgg doomu aadama bi nekk sécurité ci këram ak néegam ba nga xamee ni ku fay dugg si war naa yëg ni diw mi ngi ñëw loolu moo tax ba daanaka bu dul sa néeg jabar ngalawaay bal ngaa dugg ci benn néeg néeg yaay laam néeg doom laam néeg kum mën a doon yéeg loolu ba ñu xam ne yaa ngi ñëw mi ngi noonu benn waaye ñëw na ci ntaari sa waa ah sama yaay moom danaa ko tàggu ndigal yonent bi ndax yonent bi ne ko ndax bëgg ngaa dem fekk sa yaay def yaramu neen mu ne ko déedéet mu ne ko kon tàggu ko ndigal wala ngaa dugg ci néeg bi fëggal ba ñu xam ne yaa ngi ñëw kër jàmbur it naka noonu bala ngaa dugg ci biir kër jàmbur rek jëkkal fëgg ñetti yoon bu dee neen jox nañ leen ndigal xayrun soo fëggee ñetti yoon kenn joxulu ndigal nga doog a dellu ca rawatina laaj ndigal bi gën a màgg suñu jamono tey ji daanaka ñëpp am nañ portable donc que nit ki booy ñëw këram nga woo ko ndax diw yaa ngi fi mu ne dama faa bëggoon a ñëw su dee ne mën na laa recevoir xayrun su dee dafa nekk ngant xayrun bu loolu amul it boo ñëwee ca kër ga fëgg ñetti yoon kenn wuyu wala na nga na nga dellu donte ne suñu borom dèjà teg ni soo fëggee ñu ne koo kan la nga ne mën na bilal ci am ñu ne waaw bilal dañoo jàpp ne demal ba beneen yoon suñu borom mu ne dellul donte ne bu dee sénégalais dana fi de laaxiri la fi dellu siwaat waaw waaye nag suñu borom dana dellul mi ngi noonu ba am na yenn borom xam-xam dañ doon wax aaya boobu day ay at ñu ngi koy wut bëggoon yàlla nattoo leen ko bañ dund ko waaye yàlla musu leen ko nattoo waaye suñu borom mu ne buñ in qiila lakum irji'u farji'u huwa asqa lakum mi ngi noonu dellu leen looloo gën ci yéen loolu kon mbokk mooy mbir bi ba mu des ay kër yoo xamee ne nii dañoo jox nit ordre ci ñu dugg fa nu mu leen neexee mooy buyutun ghayra maskuna mooy lu mel ne bitig yeeg magasin yeeg pharmacie yeeg yu demee noonu da ngay gis dañ naan poussé nga dugg mi ngi noonu léegi-léegi mu am kër yoo xam ne ay këru dajowaay la jox nañ nit ñi ordre ku ñëw dugg su boobaa it darul ngay taxaw ci buntu bi di laan digal parce que jox nañ nit ñi ndigal boo xam ne ndigalu maaruf la loolee dara néewu ci mais daal ki nga xam ne moom daa isolé wu ci këram tëj këram bala nga faa dugg laaj ko ndigal yéen ñi nekk ci biir kër gi it balaa kenn dugg ne kenn fekk néeg bu mu tëj na laaj ndigal bala fay dugg kon mi ngi noonu lañ ca mujjee woon mooy la nga xamee ne mooy saytu ko feebar saytu ko feebar bokk loolee ci tuyaabu yi gën a bokk mag la bokk yonent bi alei salaam bokk nag ci àq julit ak mbokkam bal suñu borom yonent bi leen dana woo benn jaamam yowmal qiyaam ne ko yaa yëpp na adam mariktu falam taut ni yow doomu aadama tax ma feebaree seet si woo ma ah mu ne ko waaw yow nooy feebare yow yaa rabbul alamin mu ne ko xanaa yëgoo woon sama jaam di feebaroon na ci seeti woo ko wala uttahu la wajatani inda moo ne boo ko seetoon fekk ma fa de loolee kon ñu gis ne sa mbokk julit dëkk ak yow feebar amoo benn ngant war ngaa dem nga saytu ko ca feebar boobi la ci nekk ci mbir bari na trop donte ne ni rawatina ñun Sénégal waxuma sax Sénégal jamono bi ñuy dund nit ñi bu ñu feebaree ñaari feebar la ñuy boole feebaru yaram bi metti ak feebaru poche wala sa mbokk julit feebar nga seyti ko yëkkati dara teg ci loxoom loolee mbokk da ngay gis ne tey ji benn waa jàkka rek kenn ci ñoom feebar na ku dem joxoon ko 1000 francs rek mbokk balaa yàgg mu dajale fi 100000 wala 200000 man cee jënd ay ordonnance am gannaaw ba ñaan nga koy ñaanal ñaanal ko yàlla dalal xelam féexal ko digal ko loo xam ne mën na ko faj loolee kon ci tuyaaba yi gën a rëy la yoo xamee ne nii ku nekk ci ñun war nay bàyyi xel ci loolu waa xam naa comme wax nañ lu xaw a gudd ñu ngi bàyyi mbokk yi ci masala yi ñu jot a jàngale ci wàllu nuyoo beeg wàllu laaj ndigal beeg yu demee noonu ku ci amoon lu mu ciy laaj incha allah wala ñuy yegg ci yeneen bind incha allah naam bismillah naam naam naam naam wala kulli xaal ka nga xamee ni day mi ngi yor ab cigarette dem di tux moom la gënoon boo koy nuyu nga nuyu ko nànk rek jàll bañ ko ko yëgal ndax bala muy génnee kàddug yàlla ca cigarette am boobee loole mbokk mi ngi noonu ndax cigarette lu bon la waree su ko lënkale kaddu borom bi jàll wa ala amma bu dee jigéen boo xam ne dafa raf la it loole la chaque ne lu bari ci sunu jigéen ñi tey mën nga wax 70 pour cent yi dañoo doon rafle ne lu ñu ci muuru ala kulli xaal yow romb boo ko rombee nuyu ko rek nuyu ko mi ngi noonu kay nga xam ne nuyu woo ko woon ngir cigarette tamit boo ko dajee beneen soon nga ne ko gis nga sëñ bi boo romb naa la keroog sàngam cigarette bi dala moo taxu nuyuwuma la xëy na loolu mën na koo jajj jajj goo xam ni mu xam ne loolu nekkul lu baax mi ngi noonu am na daal yenn yuñ cee génne masalan nit ki dana nekk ci place bu muy faja aajo loole moom léeg-léeg ñu ci bari dañuy bañ nit ñi xàmmee leen jarul nga leen di nuyu ki nga xam ne dafa làqutu ci lëndëm nga bañu bëggul ko xàmmee it même boo ko xàmmee jarul nga koy nuyu ndax nuyu buñ koy wax mooy dalal nit ki asalaam mooy amaan dalal ko mu am jàmm am féex mais bépp nuyoo boo xam ne boo ko nuyoo mu def ko kersa def ko xaraj ay jafe-jafe lu mel noonu mooy boo koy nuyu nga nuyu ko nànk sa digganteeg sa borom ñaan yàlla may ko mucc waaye bañ ko ko dégtal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam wala kulli xaal su dee ñoom seen aada tànk tuddoo seen tur duñ la tontu ah nga tudd seen tur rek donte ne boo romboon ne asalaamaaleykum dem yow sa jaan wàcc na amma nag ñoom bu ñu jàppee waa dëkk bi seen aada mooy ki nga romb ne asalaamaaleykum tànk boole woo ca jóob moom day jàpp ne nuyuwuloo ko su boobaa nga ne ko asalaamaaleykum jóob jàll dem donte ne yow loolu nekkul lu la war waaye nag lépp loo xam ne day boole xolu julit ñi moo gën luy teqalee xolu julit ñi léeg nga dégg ci gox yoo xam naan kooku ak dafa ñàkk aajo bu la rombee du la sax xam yaa ngi dégg su doonte ne suñu dokkee côté njàmbur yeeg côté nangam teg léeg nga nuyu boo nuyu ak góor dina nikk sa loxo ne la waaw ne la suñ caam mi mi ngi xaar nga diglu la ko njaay wala boo ko waxul turam mu ne xool di de moom xamatul kenn sax loolee mbokk kon ay problème mu gox la lépp loo xam ne nii nag dafa nekk ci gox maaruf ca xaraamul ca boo ko deful mu daal di jur ñagg-ñagg xol dara nekkul nga def ko donte ne ni cosaanu nuyoo ci lislaam daal mooy asalaamaaleykum wa aleykum salaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaw waaleyka salaam loolee da ngay gis ne nuyoo la boo xamee ne nii li gënoon a rafet mooy comme daf ne aleykum yow it nga ne wa aleykum ndax nuyoo mën nga wax asalaamaaleyk waaye dañ naan liñ ci gën a jublu mooy nit ki heure fu mu nekk mi ngi nekk ak i malaaka loolu muy benn nit ki mi ngi am njabootam muy ñaar kon heure boo koy nuyu nuyu mbooloo mooy yaa ngi koy nuyu ak lépp lu mu àndal asalaamaaleykum kon yow it boo koy fay la gën mooy nga ne ko wa aleykum salaam ndax la borom bi ne nuyoo leen nam rafete wala ngeen wax nañ leen ko waxe mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam xam naa lu mel ni li mbokk bi doon laaj sànq rek dana ci am beneen problème moo di ne léeg-léeg nga am say ñoo xam ne doomu bàjjen lañ say doomu tànt lañ seen aada mooy buñ dajee yow dañ lay jox loxo loolu nag boo leen joxul loxo ñu jàpp da ngaa ñàkk kersa ah loolu nag du tax nga jox leen loxo maslaha warees na koo def ak nit ñi tànk duggoo ci lu xaraam tànk bàyyi woo wareef waaye bépp maslaha boo xam ne da lay dugal ci lu xaraam wala di la bàyyi loo wareef loolu kenn du ca maslaha wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam naam ala kulli xaal suñu borom subhanahu wa taala moom moo wax ne isa bu dee isa daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum nuyu leen ci seen kaw bakkan ñu dégg ca benn julit julitay mbokkam benn la ak moom julit ñi benn jëmm lañu kon ki ngay nuyu mel ni na sa bopp ngay nuyu moo tax borom bi dañuy wax naan wala taqtulu anfusakum ila axir yu deme noonu loolu taxit borom xam-xam yi rafet lu ne boo duggoon sa biir kër fekk fa kum mën a doon doom soxna lépp asalaamaaleykum ngay wax bu dee da ngaa dugg ci kër gi gisoo kenn nga ne asalaamualeyna wa ala ibadillahi salihin yal na yàlla jàmm yal na jàmm yàlla nekk ci ñun ak mboolem jàmmi yàlla yu baax yi ndax suñu borom nee na bu ngeen duggee kër na ngeen ñaan yàlla jàmm loolu kon bokk na ci loo xam ne it lu lu ñu rafetlu la wallahu subhanahu wa taala aalam mu des nag kiy jàngal quran kiy jàngal quran toll ci benn aaya nit ki nuyu ko loole ndax dagg ga muy dagg aaya ba ala kulli xaal bu doon la ca des bëriwut dara nekkul ci mu yeggale aaya bi ne ko waaleykum assalaam ñaareel ba it bu doon ne la ca des bari na yow mi tolloon ci aaya day ni nga xam ne page bi yépp la nit ki ne la asalaamaaleykum nga xaar ba page bi jàng nga doo ko fay dana ko fekk ak apes ala kulli xaal donc yow dara nekkul nga ne ko waaleykum salaam la ñu cay bañ daal mooy dagg jàmm seen yu ëpp ya waaye yaa ngi jàng alquran nit ki nee na la asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam loolee yaa ngi jëfe alquran gannaaw ba nga koy jàngee te loolu lépp dafa rot ci alquran loole mi ngi noonu ndax ba demee ci borom xam-xam yi dañu may ixtilaaf ndax kii jàng alquran wares na koo nuyu am waresu koo nuyu am ñu ne bu dee da nga ko fekk mu concentré jàng alquran bi doo doo ko nuyu waaye ñun lañ ci gën a doy mooy borom xam-xam yi ne na nga ko nuyu parce que yonent bi alei salam nee na julit borom bi moo ko julitam na nga ko nuyu kon maadaama mi ngi jàngal quran nuyoo ba nga koy nuyu bu dee ne asalaamaaleyka ak waaleykum salaam yàqul dara ci njàngam alquran ma mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah waaw loolu moom xëy na moom xam nga savoir vivre moom loolu moom ñu bëri doomu aadama yemuñu ci savoir vivre waaye ki nga fekk mu concentré ci kaamilam kookee wuroo ko dog lu dul ci loo xam ne farata la bu munta ñàkk am maa nag nuyu ko jàll rek loolee moom da ngay gis ça prendre juste ay dix secondes lay doon asalaamaaleykum waaleykum salaam am maa nag dog ko moom di ko nuyoo ko jàmm sante loolee lu munta ñàkk rek moo tax ñu koy def hatta yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na hadis yu raar raar lu bilal solo laaj nañ ko waaw yonent bi bu ñu ko daan nuyu fekk day julli li muy def mu ne day def ñu loxoom te mooy saxaabi bu ko romb mu toog wala romb ko mu taxaw mën nam xamul yonent bi day julli mu ne ko waaleykum salaam day def ñu loxoom pour wane ne man dama nekk ci julli gis ngeen ndax julli moom yàlla moo ne qumu lillahi qanitin kuy julli moom du wax ak kenn ku dul yàlla loolu moo tax wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam mais nit koo xam ne boo ko nee salaamaaleykum da lay lànk bañ lay fay
nit ki nga xam ne bu la waxee salaamaaleykum da lay lànk bañ lay fay ab julit la boo ko demee ne ko asalaamaaleykum rek nga dal dem sa yoon loolu mooy mbir bi boo ko nuyoo yow sa jaan wàcc na moom kay moo am problème waaye yow bi nga ko nuyoo yow sa def nga la la sa diine sant moom moo am problème ba nga xamee ne bu dee yow da nga koo da nga koo bëgg yéene bàkkaar sax romb ko rek di ko nuyu ndax fu mu la nuyoowul moom am na bàkkaar fu mu la fu mu la fayul rek moom moom moom am na bàkkaar loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ñu wax la ci kenn ci borom xam-xam yi dafa defar benn plat bu baax a baax yéene ko benn waay. waa ji ñëw na ko ah waaye yow sa plaque bi am na solo di yow lan laal defal ba nga may jox li mu ne ko daa am ko ne ma dégg ma doon jëw ma xam ne nag tuyaay ba jigéen ma yéene moom wax dëgg yàlla am na solo moo tax ma joxe la loolu ala kulli xaal daal moom daal nit ki lu mu doy waar doy waar maadaama julit la yow ne ko asalaamaaleykum rek dem bu la fayee xëyrun bu la fayul problème am la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam mu ne mu ne آه. واو فلا يستقبله فلا يستقيله له
بني
في كتاب الفاظ في سان
واو إن فمن سلم على ذمه فلا يستقيله اه واو واو واو قال تعالى وقاتل ولا
waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg wa wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg dañu dañu koy gis waaw waaw waaw waaw waaw wax waaw waaw waaw wax wax wax na dëgg wa wax na dëgg naan wax na dëgg jazakumullahu xayran barakallahu fiik wax foofu ci leeral waaw boo juumoon ba nuyu ko jàpp ni jullit la waaw waaw ko ko xamal ne waaw waaw loolu la loolu loolu la ala kulli xaal ci wàllu commerce yonente bi alayhi salaam mu ne man aqaala musmi musliman aqaalahu llah istiqaala mooy nit ki nga xàccal ko te mooy di ko jox ngant naan ko xawma woon nuyu ko ba pare wëlbati ko nag naan ko ah dama foogoon julit nga waaye nuyoo bi mu la nuyoo yeyoo woo ko loolee kon la ñuy wax du yastaqbiluhu waaye yastaqiluhu du delluwaat di ko wax naan ko damaa def njuumte waaye wóoruma la woon nuyu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam jazakumullahu xayran naam naam waaw waaw waaw ala kulli xaal la nga xam ne mooy sunna ci ngénte day mooy juróom-ñaareelu fan ba la yonente bi alayhi salaam wax ci la ñu reyal xale bi donc juróom-ñaareelu fan ba jot na yàlla may na la ab gàtt su dee la gën rek ngay wut day nga rey ko ca juróom-ñaareelu fan ba mooy la gën doonte ne ne nekkul ne mooy farata lii farata mooy xale bi ñu reyal ko boo ko reyuloon ca ñetti fan ya reyal ko ca fukki fan ya reyal ko ca loo ko mën a reyal la nga xam ne moom mooy farata euh, boo xam ne nii borom xam-xam yi yenn ña ko jàppe farata ndax du ñëpp sax ñoo ko jàppe farata ñu bëri sunna rek lañ ko def waaye ña ko jàpp sa xataa farata mooy ñu reyal xale bi yonente bi alayhi salaam mu ne kullu mawludin mi ngi noonu marhunun bi aqiqatihi bépp ndaw dañ koy nekk di ko doon tayle ca lañ koy reyal loolu nag la ca gën mooy la ca yonente bi teg mooy yow mu saabiihi bi su juróom ñaareel ba waaye mën na koo jiitu comme mën na ko yées wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal yaakaar naa bu dee ne est ce que li ci des waaw mën nañu continuer jël kan la ñuy julli sax du 30 ah
23 note de 23 la ah te nga te nga te nga vingt deux moo jot waaw Hmm. Mhm. waaw ah
ma ne note de voilà Hmm. waaw wala kulli xaal day day day lu wax fii rek ñu yeggale lu ndaw li rek mu ne wala yatanaja asnaani duna waxid ngalawaay bu mu nekk di deeyoo ñaar ñoo xamee ni nii bu ñu nekk di deeyoo ñaar fekk ne am na kenn koo xam ne nekk fa ñu ber ko wa kazalika jamaa iza abqaw wahidan naka noonu mbooloo bu dee dañoo bàyyi kenn wa qad qiil wax nañ ba tey la yanbaghi zalika illa bi izni am na ñu ne nag dara nekku ca lu dul ci ndigalam wa zikru lhijra qad taqaddama fi babin qabla hadha bu dee lam doon wax nag ci la nga xam ne mooy gàddaay nit ki jiitu woon na ca bunt ba nga xam ne moo jiitu loole mi ngi noonu kon mbokk fii day wax rek ci ni bu dee da ngeen nekk ñetti nit ngalawaay ñaar ñi bu ñuy nekk di waxtaan bàyyi kenn ki imma dañoo beru fee di deeyoo yéen ñetti ngeen nga ne diw kaay ma gis la ngeen bàyyi fa kenn loolee kenn du ko def wala ngeen toog di wax lang boo xam ne moom déggu ko mi ngi noonu ngeen toog yéen ñett yéen ñaar ngeen commencé di wax lang boo xam ne ni moom déggu ko loolee yonent bi alayhi salaam nee na dafay tiis ab julit mu ne bu ñu ëppoon ñett it naka noonu bu ngeen nekkoon juróomi nit ngàllawaay bu ñu toog mu rek ñeenti beru gisante bàyyi fa kenn ka loolu it la ñuy wax su dee mën nañoo wax lu ñëpp dégg waruñoo rek beru ci langue boo xam ne nii ah kenn ka dégg ko allahuma lu dul ne bu dee dañ koo laaj ndigal loolu mën naa nekk mooy nga ne diw baal ma de kii de dafa amoon lu ma ko waroon a expliquer loolee moom bu dee joxe na ci ndigal mu ne loolu xayrul donte nag cosaanu xadis moom na ko yonente bi alayhi salaam waxe bu dee ñetti ngeen rek bu leen nekk di déeyoo bàyyi kenn ki loolu mi ngi noonu amma mu ne ca la passé waxoon na ci wàllu gàddaay yi te gàddaay boobee dañuy gis ne julit warul nekk di gàddaay mbokk julitam la ëpp ñetti fan ñu daje kenn du nuyu sa moroom bu dee nag ci biir ñetti fan yi loolu moom mën naa nekk waaye bu ëppee ñetti fan waruñu ko def ka gën ci ñoom mooy ka nga xam ne mooy jëkk a nuyu moroomam mbokk kon mi ngi noonu incha allah dañuy bàyyi bilal nodd li ci des ci ay minute ñu xool ndax am na yeneen laaj yuñ ci mën a dolli wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain naam